li ñu fi daje tey nag mooy lancé programme boo xam ne nii euh, ñiy yëngatu ci wàllu élevage nga jiituma ci wax nañ ni ci wàllu dayoo ak ci wàllu alal bi ñu war a dugal ci programme ou projet élevage bii dayoo ba mu ci am mosul am ci réew mi kon loolu tegtal la ci solo bu ndaje mii am ngir lancer programme boo xam ne nii que jàpp nañ ni ci dayo mosul am ci élevage programme bi nag ni ko coordonnateur bi waxee léegi jarul ma ci dellu siwaat ndax ku ko déglu ci présentation bi mu def ci programme bi li muy mébét ci élevage suñu yàlla mayee dund may ñu kàttan ñu doxal ko am nañ yaakaar ni jéego bu am solo lay doon ci bëgg-bëgg bi nga xam ni kilifa yi am nañ ko ngir ñu jëm ci euh, loolu ñuy tuddee souverainté alimentaire souverainté alimentaire nag mooy fàggu lépp loo xam ne nit kuy li muy dundee la ñu fexe ba muy jóge ci réew mi ci biir projet bi ñu gis si lu jëm ci wàllu meew jëm ci lu gis si wàllu yàpp jëm ci lu gis si wàllu euh, nen dem si ba ci lépp loo xam ni euh, mi ngi euh, kii ak lem euh, te avant produits yooyu lépp loo xam ni dafa jëm ci li dundal jur gi mu nekk lu am solo te programme bi am ci ay en tout cas ay yéene yu am solo loolu yëpp boo ko dajalee en tout cas dafay ñëw ànd ak yéene bi nga xam ne nii autorités yu bees yi am nañ ko ngir fexe ba lépp loo xam ni dañ koy dunde ci réew mi muy ci wàllu mbay la walla ci wàllu sàmm mu nekk loo xam ni waa réew mi ñoo koy liggéey euh, programme bi nag ci wàllu dayo bi moo koy wax léegi euh, mobiliser nañ lu tollu juróom fukki milliards ak benn nga xam ni suñu partenaires yi muy banque africaine développement dugal nañ ci daanaka lu jege en tout cas vingt six milliards ak lu topp euh, suñu partenaire bii di BID banque islamique développement dugal ci ñaar fukki milliards ak benn ak lu topp

te xar bi Sénégal yëpp di séntu éleveurs yi mën leen ko indil en tout cas mu nekkaat aussi ndamu élevage.